sabbal leen baay barahama jërëjëfe baay war nañu la la la الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح القاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن جميع مراتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويسو نيغي képp ku ñu bokk jotaay bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi leen di nuyu di leen ndokkel di ndokkel suñ bokk ci jotaay bii nga xam ne jotaay sant yàlla rek la. wasifa nañ fi kon ñun suñ jotaay bi comme ni ko góor bu baax doon waxee sëñ bi Momadou wax Muxtaar. am na ñun doon euh, waxtaan ak ne leen bu ngeen wasifa woon Cheikh Tidiane ñëw ci seen jotaay bi kon ñun rafet nañ njort ne Cheikh Tidiane ñëw na fi te gis nañ ko xam ne moom day gis Cheikh Tidiane mu xaal fi xaal boo xam ne njort njort nañ ne daal tubarkalla waaw gis nga ko yonent bi noonu Baay Ñas noonu ak gaaya walilahi kon dañu sant yàlla ah am na ko wax ne kontaan naa dëgg la barke Baay Ñas kontaan naa ndax wax dëgg yàlla tey daal damaa gis sama bopp daal ah wala fi ñu ne seede si mbay dàgg hm? te dàgg ji sax des na de am na ñu ne bitim réew am na ñoo xam ne ñu ngi fii ngànta leen téye waaye seede si mbay dàgg ndax fermier la xoolal ci ruq bi rek ndax am na grenier bu fa boo gisee grenier bi rek am lu fa ne nga xam ne ah, fermier la fali laay xam xanaa di wax ni Cissé wax waxta si moo bi hablillaahi jamii di bu jub daf ko ne mooy leen ci genn buum gi nga xam ne su yëngoo pay bi allahu waahidu maa yem si di barka bi nga xam ne mooy leen ci genn buum gi nga xam ne bu yëngoo pay bi riir allahu waahidu maa yem si di xam ne bu yéen noppee mbir allahu waayidum maa yéen firi bara am naa. benn benn buum ki nga xam ne bu yéen noppee mbir allahu waayidum maa yéen firi bara am naa. bu leen xañaan joxe leen seen tur Seexu Tambe leen docteur Adam lay bi moo di bara am naa. benn buum ki nga xam ne bu yéen noppee mbir allahu waayidum maa yéen firi bara am naa. Barama Abdullahi kula kam xam na Seexu ku la teg bët gis na yónneen siri bara ama leen ci benn bu mi nga xam ku yëngoo bay tey duñ mën a ñàkk a fàttali tuuti taarix tey mënuñ ñàkk a taarix lii nii toujours damay wax ne kaaba gi yàlla la waaye axaraam yële ca Égypte mooy pyramide yële bakkan la gloire ak prestige rek moo tax Khéops Khéphren Mykérinos tabax loolu hmm? xoolal yéene bu sell biñ tabaxee Kaaba du ràpp mukk heure bu ne ñu ngi koy dundal waaye boo fa taxawee yëg loo xam ne doo ko mën a expliquer boo amee basira ah ca aadama lu ko jiitu toppal yonantu yi awliyaa yi saali yi lay ba fi may wax ak yow ñoom ñëpp tawaaf nañ foofu du ràkk mukk waaye booy seet yële ñoom koy wax su defoon ah ay vestige ngay xool de atam ah. huney biya kala daan aaye biir kaaba ga ñu ko jeene sëf ko ay ngaar siri ñii dañoo jógee par droit booba dañ doon def ay thèmes la la la daan jox taalibe yi ñuy dem di waxtaan ci yalla ñu joggé fa ak seen xaal zikr ba unité 13 né ma bay mané am ah ñu né ma dañ bëgg lal malan mané hé eh waaw bokk na ci sama sama sama sama melokan man yeen baangi ni nga fogné dama ko ragal di wër di wër ba ko yenné ko jël rek lay xalaat waaw noonu la gàpp ak kilifa ñett la ba ñeent ñàkk xam-xam gaaf la ci kilifa tëlee wax gaaf la ci kilifa ak ragal ñàkk njëriñ ñaar yi nag moom dalu la fii kilifa gu fi ragal ñu boole la dàqee lay ak sa mbooloo bu xël wa àkkee ñu ne la copain kon baax na <laughs> te foog naa ñàkkuma njëriñ it nag yàlla lu ne bu leen tàgg nag seen bopp waaye su ma su ma amul xam-xam ne oustaz hmm? su ma mënta wax ne ay eh, siise kaay kon fa lilahi alhamdu ñu ne ma madaan bi lañ bëgg a lal ma ne ah xoolaat ngeen li ngeen di wax bu baax looloo tax ñu ñëw man nattu leen gis ne dëggu nañ ma ne leen waaw baax na ma ñëw waxtaan ak jëmm mu toog ñu ànd dem ci bàyyi mbooj ñëwoon na fi mais jagat yi moo tax mu yeewee biñ demee ñu ko fekk ci jàkka unité bay ñu waxtaan wax ko lu doon suñ tànk mu ne ñu ah lal beeg lal bi daal man moo ma ci jaaxal toujours dañuy lal di lal ñu daal ah incha allah ñu daal bëgg nañ buñ lalee daal du demee noonu waaw baax pare wu ma ci loolu ma dem seeti suma magum taalibe bàyyi jiba ndax moom la ma bàyyi Maxtaar boole ci waaw mu kilifa baaxul hmm. wax ko li doon samay tànk mu rafetlu ko lool tegtal ma ñaax ma ma ñëw ne leen bismillah ñu ànd lal malaan mi lal ko ci biir kër boobu bariwul ñu dox tuuti génne ko ci biti malade moomu tey moo jur ay malade un peu su ko defee nag fàtte démb wala fàtte daal xaju fi kon maa leen di wax ne nañu bàyyante xel man su ma neexee ma ne man daay ci maran bi du man maa ko lal taalibe yi ñoo ko lal moo tax may wax ci yéene bu sell ndax dégg nañ ci lu ne dama ko fàtte moom du dem waaye ñoom ñi ñëpp kii ne lu koy teree dem kii ne lu koy teree dem Seydou Diop ne lu koy teree dem Cheikh Dramé ne lu koy teree dem Pape Ndiaye hmm? Boubacar Codé ah ku Mami Diop mu ngoog Aram hmm? ñoom ñëpp ne lu koy teree dem pas-pas moo ko indi fii loolu fokk ñu di ko bàyyi xel léegi nag man kan moo ma tarbiya bàyyi boobu si man moo ma tarbiya su ñaawoon du may soxna kon ngeen la waay rafetal leen diggante yi bàyyi diba moom moo doxal sëy su ñaawoon du téye sama loxo téye loxo magu ami yaa ami bële ne Baye Mbodj maa lay seddal ne ñaar ñii kenn ëppaloon pour la ci ñi ma Baye Makhtar boole ko Baye Mbodj ko seddal lu tax mu rafet. a tax foo tànk dëgg la wallaay dëgg la wallaay dëgg la. xaxaruma leen xaxaruñu hmm? kon moo waxee ko noonu dégg ngeen li ma bëgg a wax loolu rek moo tax mu demee nii ah bu ma bàyyi bu bu xaxaroon du ma ñeme bu ma ko doon xaxar su ma junnee xel du daj dem kon nag yéen seen diggante bàyyi leen ko xel xam ngeen lu ma bëgg su dee li ngeen di woote dëgg la. kenn ku nekk buñ fi jógee ko na sol dàllam feddali kóllëre ak magum taalibe feddali kóllëre ak mbokkum taalibe su fekkee lii am gëm naa li ngeen wax su fekkee lii amut gëm ma ah, dana am baay tey maa ngi di wisit ndax lam ngeen gisi di mara di ngeen jox te ndax dara am cakala ji teg ki la yoon mat bul di ci yoon moom taalibe tayo sëriñ dara am lekk leen ne ñëpp di ci tool. jërëjëf Baye Cheikh Tidiane Touré jërëjëf jërëjëf lii mënuma ko ñàkk wax ndax li nga wax nii moo ma moo ma yëgal moo ma yëgati. barki démb dañu benn ndaje boo xam ne ay xale yu bay wax ñoo fa nekk wallaahi li nga wax nii laa wax ndax dafa am ku jóg ne nañ leen ñaan yàlla. mbir mi xew li ci suñ biir ñaan a ko doy ji ma ne leen déedéet ñun amut wirde wuñ wirdew ci àdduna dox buñ def ci àdduna amut lu ne liggéey na ko ci kaw suuf hasbunallahu wa ni'mal wakiilu yàlla te ci liggéey te jamono si at yàlla ko bëggoon def liggéey mënu ko woon liggéey ndax amutoon mbooloo ma ndax bàyyi waxtaan ko wax bàyyi ñes ñëw am na a bu ko mën liggéey mais mën ta toog ba mën waaye waxtaan bi am mbooloo mu ko mën a liggéey ñu ànd ak mbooloo moom liggéey ko ay turi turi turi turi lu ne ko ci kaw suuf fii ba fay lu tàkk fii ci Dakar ak ni mu ko waxee ñu dégg kon ñun amul luñ liggéeyut jamono biñ toll nii nag dafa am loo xam ne moom moo ñu war a takkee fi nekk nii dootul kurus toog naan alaabuma jóg defee ko mooy li nga wax kenn ku nekk. nu yëg ne sa mbokk mooy sa bopp may leen jaaxal na ma nuñ defee liñ ñu jox bàyyi waxtaan dafa am fan ci firi alxuraan bi muy bi muy banque di banque di banque ndax yéen alxuraan moo wax ne ndax da ngeen di waxee li ngeen jëfewu ma am benn mbokk taalibe bi ma wax ne ko lii de ñun ñoo ko moom ndax da ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko jëfee ñun ñoo moom loolu laa ilaaha illallaah bi ñuy tuddoo mu nekk suñu xol yi nañ ko jëfante ñun ci suñ biir mooy li Baye Cheikh wax moom laay dëgg li wax moo tax ma ne jërëjëf Baye Cheikh jërëjëf Baye Cheikh li nga wax mooy dëgg suñ génnee kenn ku nekk na dem sa mbokkam taalibe sa mbokkam mbokkam mbokkam sa mbokkam mbokkam taalibe jox ko loxo te xam ne lu njëriñu pare na dara xewutoon dara mas ta xew mais yëgukaayu maqaama rek moo fi jaar kese dara léegi nag lépp yegsi na ñoo moom lépp إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها من يوم من ما يقطع الله لون ما عارف بالله يسعد ما لها من الله من الموكب فك دفع أم يوم كاي مقام رك لون فلنا من يوم من يب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت وخرجت الأرض أشغالها وقال إنسان ما لها يومئذ تقدس أخبارها لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله waaw kon moo wax ne lii péeb yàlla bi la lii nii péye bi yàlla bi la kon rëng-rëng bi fi amoon yéegukaay la ni ñuy xamee ne nag yéeg nañ ngeen def li ma loolu moo koy tegtal kon nag bu ngeen fi jógee defee leen noonu coow li junj naa ko fan yi Baye Niass dafa wax mu ne al aarifu man taraka muraadahu muraadil xaq ah, ah. ah. aarif mooy kan mooy ki nga xam ne dafa bàyyi namm-nammam ngir namm-namm yàlla bi xam nga problème bi lu ko indi yàlla dafa déroulé programme jàmm bi jot déroulé programme léeg-léeg mu samp kujjee sax yàlla rëdd mu ne du fi am rëdd ci wetam te xam nga yàlla moom dafa kéemaane yenn saa yi dalay jaay di waaye bés bu ko soofee hmm? mu wàqi ba mu xóot dugal la soo ko far rëdd bi du ko far sax sa kanam soo ko far rëdd bi continue wala mu jéng la li may wax nii maanaa la du jël ceen jéng la léeg-léeg nga amoon sañ-sañ tumarankee gaaw la rë far sa rëdd bi ñëpp ne daraawoo mu continuer la al aarif man taraka muraada li muraadil mais l'homme mooy l'islam soumission à la volonté divine lu yàlla samp nga ne Nous payons pee bi yàlla bi téye nga ne ut say paxe ñàkk tawfiix rek laa ilaha illa allah bin joor fii allahu akbar yonentu wax na ne ana wa nabiyuna min qabli afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa li gën ci luñ wax ci li ma wax man ak yonentu yi ma jiitu mooy laa ilaha illa allah kon nag afdalu man qaala laa ilaha illa kan la war a dox mooy yonent bi mooy ki gën ci ñuy wax laa ilaha illa allah mais wax yii dafa am fu mu yem yonentu boobu ku ko jiitu xam nga ne wax ji am na fu yem afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah moom ku ko jiitu yonentu yàlla Muhammad ku ko jiitu mooy ëwalu tëjjali tëjjali yaatu yëpp ci yonentu bi la génne kon wax ji waxama ñeneen ñi li ñuy wax waxit la loolooy dëgg laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ponk lislaam yi juróom la ponk bu njëkk bi ñaari seede doy na waar de ñaari seede doy na waar de gis nga boo jógee ci nelaw yu xóot yi fekk si ma fi may waxee boo yeewoo am nga xaqul yaqin ne ci nelaw nga nekkoon ndax ca nelaw yooya waxtu wa ngay nelaw mënoon ngaa seede ah dégg eh, bi kan xat kuntu xabla taarufi kooku loo fay xam xabla taarufi eh, kon ci Muhammad Rasulullah ci ngay xamee laa ilaha illallah nga cee ràññee ci Muhammad Rasulullah ci ngay xamee laa ilaha illallah ah ah waaxidiya ñëw leen tëjëli zaatu lil xaqiqatil muhammadiya lii nii laa ilaaha laa fukki xaraf ak ñaar la nel ñetti xaraf la biñ laajee bàyyi lan mooy ëzël mu ne zaatu xam la tëjëli ñu ne la martabatu ahadiya tëjëli la ci ëzël martabatu waaxidiya tëjëli la ci ëzël ah noo koy tuddee ëzël kon kon juddu na te juddoogul rek nan bi juddu na tëj waaye juddoogu njaw des na xam bi kon ñetti xaraf la nel alif laam ah li ko dippi ci maqaamam ñaareel ñetti baat la muhammadu rasulu laahi muhammadu rasulu laahi su ko defee ñetti yooyu nag lu mu tegtale li nga tawhiidal taw tawhiidal sa bopp ci dàqat am ak leneen lu dul yow te lu dul yow amut loolu wax la waay kii tawhiidal boppam ci lan sukkandiku ci dàq am ak leneen lu dul moom te eh, yéen laay waxat laay laay la laaj kon kay demal ci amal lim amal pour nga xam. foog nga ñëw ci Muhammadu Rasulullah nga xam ñëwal ci lim amal liñ amal amul ki ko amal moo am kon nag liñ amal mënees na ci dàqee waaye mënees na ci saxale dina dàqu ci anam waaye dina sax ci anam ah, dëkk ko bismillaahi rahmaani rahim da gis Abdullahi rabbana abdu Abdurahman ak ba noppi abdourahim ñu ne mooy solution bàyyi la solution abdourahim bàyyi la solution am na léegi ku wéy mu ne laa ilaaha illallaah bàyyi daf ne mu ngo suñu yàlla bu yàlla def suñu cëru taalibe yi mu nekk euh, xollitu diina ولا يبقى قسم الدين حظ محبنا بل اللب كل بمهد أفائي جيخنا سوكو دفعنا خولت بوبو wax deug yalla indi lula la mango bi indi lula mango bi bo demé ci bobu indi lu moy mbir mi ciopatil makan bi ji ji xox bi nga xol dana tos suuf ci mais du indi mango de gis nga fi ku fi xamul yalla billahi la ilaha illa huwa matam safara ngay do waaw wala coppat coppatil mbakan bi rek nga gi nga jofe bay Baye Niass jofe bay lay ndeysaan kon nak Abdou rahim mom ngay andat gis nga tëjaliyaatu yi yëpp wax sax bépp xol bu fi réeree yàlla matam safara dilee benn xol rek la te yàlla du sànku ci boppam de bu doon ay milliards yi milliards yi dana am ku gindee ci ay milliards yi milliards yi kon nag bu ñu yàlla defalee tawfiq bi ñu gindee ko ci lii wax dëgg yàlla li ñuy woote nañ ko dëggal boo yore dëgg kay dëggal ko naka ngay mën a woote ne yow yaa fi nekk di jëflante ak sa bokk ci sa bopp jëflante bi di ñaaw loolu jar na xoolaat bi bu dee ne aarif lay aarif lañ kon dunduñ maqaama bi bu ñaawee rek dunduñ maqaama bi bu ñaawee wallaay dunduñ maqaama bi kon lan mooy tax ñu dund ko mooy zikrullah mooy ñu fexe ràññee yàlla parce que coow li tamit bëri na ci ñoo xam ne ah àgg ci yàlla kenn du ko weddi waaye ràññeewuñ yàlla moo tax bu ñuy def ci bu ñuy dox ci jëflante rek jëflante bi du rafet kon kuy jëflanteeg sa bopp ci sa bopp dafa war a rafet dégg baax na de ndey ay sa dafa jël sarax benn waaye ne sarax ngir yàlla baay moo koy nettali mu jël sarax bi dem ba bëgg ko jox miskin bi wëññeekuwaat gëtt sarax bi mooy mu parfumé ko yonent mu koy xool rek bi mu ñëwee jox ko miskin bi yonent bi na ko waaw soxna Aysa yow moo jublu ci lii mu ne bàyyi mooy nettali mu ne dama xam ne sarax bi balaa muy tàbbi ci loxo miskin bi day tàbbi ci loxo yàlla gis nga kooku lim mu armal yàlla la armal kooku moo dégg ngir yàlla yaa ngi jëflanteeg yàlla à travers jaam bi mu ne ko ah, soxna Aysa fi mu ne nii nag yaa ngi dégg kon nag am nañu déggut armal yàlla moo gën a wóor de wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtiqaa wajhi rabbil a'la armal yàlla gën a wóor amul xéwal bu muy fay lu dul ku sàkku jëmmi yàlla ci kon nag fa tubaarkàlla jotaay bi macha allah gërëm nañ ñu ngi ñaan yàlla su fekkee de mos naa defal yàlla lu mu gërëm yal na yàlla yéwénal seen mbir su fekkee mos naa defal yonent lu mu gërëm yal na yàlla yéwénal seen mbir su fekkee mos naa defal Cheikh Tidiane lu mu gërëm yal na yàlla yéwénal seen mbir su fekkee mos naa defal baay lu mu gërëm yal na yàlla yéwénal seen mbir su fekkee mos naa defal baay maxtaar lu gërëm yal na yàlla yéwénal seen mbir su fekkee mos naa def mbaax daal maa ngi sukkandiku ci loolu yal na yàlla defar seen mbir bu gàllankoor amee yàlla teggit bu damm damm amee yàlla jànk bu yàqu-yàqu amee yàlla defar ko bu rëcc ci amee yàlla dabaatal barke Cheikhu Tidiane barke Baye barke jàmm bu yàlla gërëm kon nag macha allah may wax ne man de beneen ajjuma incha allah am na fu ma bëgg a dem mooy suñu ustaas bi ñuy wax Ibrahima Sall man fa laa bëgg a xadaraaj waxuma nag nit ñi dindi seen malaan yi ñëw fekk ma foofu képp ku mu mos a xamal xaraf rek invité naa la nañ dem képp koo xam ne Ibrahima Sall mos na la xamal xaraf man invité naa la nañ dem incha allahu maulana ñu xadara foofu su ko defee. ah jox boroom jotaay ba muy Baye Cheikh Tidiane Dramé moom laa ko boole toon yàqu ci dara moo moo ñuy moo ñuy waxtaanal ñaaral ñu yàlla ñu ñëw Baye Cheikh Tidiane Dramé waaw ñemeeg biteeg ragal biti yëpp du ca tee fanaan jëleen ah mu ngi noonu. njaabam gëlëm xajul ci waañ moytu leen kafal. mooy rayu sulaw li moo baaxoo fare kanam mee. gileew sant xaw su bee ñu xettali. mos dogal ñu sori buumi jaam goreel ñu kenn ajul ci waañ moytu leen kafar su lawli yaa moo ba ko fare kanam be jee hasan taxaw su bee ñu xettali mustaqbal bi sin buumi njaam gorel ñu pendu moomi kon yàlla loolu la def diggante boobu dafa mos a rafet gis nga yeneen diggante yi li soxna su baax si wax moo ci féeb yàlla bay ci dóor bomb bi mu rëngi rëngi mu yéegukaay foto foto tàqalewul mbaam ak nopp yi ah yéen waa Maqaama Ibrahima yi ngeen defe ne dinaa leen seetaan rek ngeen fantasiro kenn fi doon sa proie sa proie kum mos doon sa proie wëlbateku na tey yaay proie bi ñooy prédateur آمرون لأنت تخلق الحنون وجماعهم مقام الإمام بجمك كان آلون loolu du wax du am na ba pare. am na ba pare. mos naa nekk trois nag. waaye tey mooy prédateur. attention. léegi léegi waxu waxi démb ja waxi démb ja seen mag ña waxoon waxi démb ja seen mag ña waxoon na ko ñëpp wax lu koy teree dem. day dem day dem. ni day dem day dem Baye Cheikh Tidiane day dem day dem wallaahi day dem day dem Baye Cheikh Tidiane day dem day dem billaahi day dem day dem waaye Maam Ibra Fall day dem day dem billaahi day dem dina maa nding mbaari day dem dina maa nding mbaari day dem waaye Baye Muxtaar day dem dina maa nding mbaari day dem

لا إله إلا الله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 yaa ami wallaay fi am jotaay am nga fa kàddu boo waxee am nga kàddu boo waxul am nga kàddu loolu moom laa sakk fii yaa faatu noonu wax dëgg yàlla moom mii damay wax ne bokk na ci ñi nga xam ne war nañ leen di jox àddiya ndax seen taxawaay ci kër Baye Makhtar maa ngi profité ci occasion bi di wax ne gàmmoom gi jàpp nañ ko 29 mai. wax naa siise ne li ma doon ci Baye Makhtar loolu rek ngeen doon ci Baye Makhtar man dama ko bañ ba ne magum magum laa wax xam nga léegi maa ngi am na ku may tooñ naan ko fii ngeen di nekk rek di ma sonal barke Baye Cheikh Tidiane Touré taalibe nga bu Hmm? man xëccuma la mbooloo dof mbooloo dof lawu am na loo xam ne nag jarul wax waaye li li ma doon ci li Baye Makhtar doon ci man rek loolu la doon ci yéen kon nag gàmmoom na woon fa woon lii maa leen koy wax jëfi xol la allah ngeen xam ne gërëm nañu gërëm nañ gërëm nañ gërëm nañ lii nii gis nga ragal ñàkk taw bi rek la du dara lu dul ñàkk taw bi mën nañ wormaal nag mën nañ maslaha yooyu yëpp baax na waaye nag am na loo xam ne guñ ca yeggee dangay xam lu la kenn waxul dama ne ku mu a doon sa proie tey mooy prédateur

Hello. Tijani. Tijani. jaani waaw sikarkat yi ñu ngi leen di gërëm yal na yàlla dëgëral seen taxaw yal na yàlla jox leen seen taxaw maa ci yéen barke defar seen mbir yàlla naatal leen naat goo xam ne da leen di connecté rek ci Mayoro Fall gàncax ak tos bi nga xam ne dootul jóg di naat moom bi ñuy roosee baxru sam-sam yal yàlla aj foofu te bu leen fa aji mukk barke maam ah, ah. am na ku ma wax ne ñu bokk yeesu ñu bokk yeesu ci anwaar yeeg awraat yeeg askar yeeg lépp wahana na dëgg man boo ma ne yeesal yeesalal ñu ah taalibe ci jaan bu ne mën naa yeesalal moromam bàyyi maxtaan ma ñu jàngal loolu kon nag nañ bokk yeeslu su ko defee kenn ku nekk jàng faati ñetti faati jox ko Cheikh Tidiane yeesal suñu suñu suñu suñu oustaz Lamine Diallo tudd naa lu ko jaay jam ñooñu la bokkoon mooy mooy mooy suñ président bu njëkk ci daayira Maqaam Ibrahima imam Touré ñu ngi lay gërëm ñu ngi gërëm waa koñ yëpp wax dëgg yàlla jàmm rek laa fi am hmm. waaw jàmm rek laa fi am ñu neex a dëkkal ñu jullite kon nag yal na yàlla dimbale kon yal na yàlla dimbale waa kon yàlla defal leen yéwénu mbir yokk bañ a wàññeeku bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi dafa joxeel doom ñu ñaan xanaa mami Diop mi doon jooy naan nañ nañ nañ continuer si gar kontaan na léegi lii neex na de lii neex na de léegi nag Ibrahima fu mu dëkk gàddaay ilaa gàddaay gàddaay yàlla jëm ci yàlla ilaa gàddaay jëm ci yàlla ani ah waruwaay maa la ko wax ca kon nag mu ngi noonu sëriñ bi ah mu ngoog ñun dañ fi am sëriñ sàbbaleen baay barahama jërëjëfe baay war